ndax nee na seen jitaay bii day lu rëy ndax nee na mbooloo mu toll nii kenn ku ne la la tax a jóg yaakaar ak Pastef ak bëgg ak gëm lépp mu jar ko ci sëñ Baara nee na mu joyal ko ci sëñ Baara yaakaar gi ak bëgg gi ak pasteef gi ak gëm gi nee na lépp da koo joyal mu jëm ci sëñ baara yi leen li leen tax a jóg joyal na ko mu jëm ci sëñ baara nee na yitte yi bari na te itte ju ne nee na am naw lay te itte joo layal muy dëgg nee na kon su ngeen bàyyee itte yépp ak ni mu toll bis bii tey fu waay mën a bàyyi ko ak loo mën a ne sëñ Baara rek moo la yitteel nee na nee loolu day lu rëy rëy nee na kon kenn ku ci ne sëg bëgg àdduna ak alaxira la la sëñ Baaray faye nee na mënoo koo jeexal te nee amu ci sikki sàkka nag nee seen ñaani bopp képp ak seen jitaay bii te ngeen yéeneen te jàmm nee naa suñu boobu suñu borom dana da ciy sotti dafiy sotti yéen mànde ci jitaay bi ba kenn ku ne loo ñaan suñu borom nangu ko nee na baaxu sëñ baara ak itte jim leen itteel lim leen di fayee soog a ñëw te lam am la ko suñu borom sédde suñu yittee àdduna suñu yittee àllaaxira suñu muccuk àllaaxira mënu koo jeexal te lu wér la nee na li mu wax kon mi ngi sant yàlla bu baax bi nu bi ko yàlla boolee ci jataay bi nee na yéen a ngi sant waaye nee na moom moo war a gën a sant waaw sëñ Modou Baara sëñ Cheikh eh, eh, eh. na mi ngi may sant ndax bu ñëwoon fekk fi la ren da ciy bëgg ndax bëgg ko war sutura ngir suturaal ma rek waaye nee na bi mu fi fekkee li mu fi war a fekk dana ko wóor ni mbégte mi mbégteem sañ baara la nee na loolu moo may jariñ fii moo ñu jariñ ci àllaaxira yi nee na Cheikh Sidi Mokhtar mi ñu tànnoon mi ma tànnoon te ku ne xam ni mu ci sëñ tubaa toll ko ci sëñ Baara ñoom ni mu toll ci sëñ Baara doy loo ma yabal ma fi ñuy dox loola ba nëgë ni kon xam na ni mbégteem a ngi ci biir alhamdulilah nee na ñooñu fu ñu bégee sëñ Touba bége fa ndax ñoom fu ñu ne mbirum sëñ Touba rek la ñu sàkku mbégum sëñ Touba rek la ñu sàkku nee na wóor na ko seen jitaay bii sëñ Touba bég na ci sëñ Baara bëgg na ci sëñ Sidi Moxtaar bëgg na ci ndax moom mii bég na ci te ñoom ñëpp mbégum sëñ Touba kese la ñu sàkku te nee na sikku wut nii nee sëñ Touba ngi ci suñ biir loolu doy na sëkk sikkuwul ma ne loolu doy na sëkk kon nag li ci topp dollee góorgóorlu rek ci li nu may lii nu gën koo jëme kanam mooy bennoo lu waay bi yéene sa bopp yéene ko sa morom ni ngeen def ba daje nii mu gën a yokk te gën a law nee na bu boobaa xewal lii day gën a yokk ndax nee na loolu moo doon santaane Cheikh Sidi Buxtaar nee na la ko tàmbalee ci sëñ Muudu Baare mi njëkk a wuutu Cheikh Mouhamadou Lamine ba ci sëñ Abdou Aziz ba ci Cheikh Sidi Muxtaar ñoom ñëpp loolu rek lañ doon sàkku jitaay bii ci la bokk kon nan sant yàlla bu baax la ñu yéene woon ñoom bi nu yàlla baaxee ñu ñu boole yéene ju bari yóbbaale nañ yéene yu bari yu mel nii kon bu nu yàlla baaxee ba ngeen dajee nii toog jitaay bu tol nii nan ko def ca yéene joojee te fas ko yéenee dëgëral nee liñ gën li mu bëgg mooy kër gi ànd ànd nekk benn tag ko taxaw temm ngir mu yokku rek nee na loolu la bëggoon nee na ñoom loolu la ñu bëggoon te loolu seen bëgg-bëgg mooy suñ njariñ tey ak ëllëg adduna ak àllaaxira kon ñu góor góorgóorlu ci baax te nee lool li koy dëgëral daayira yi ak fédération yi luñ gën a jaxasoo gën a am doole gën a mën a liggéeyal sëriñ bi kumpa it jeex seen diggante waaw ndax li ma wax léegi rek bu ñu àndandoo rek nee na waxut liggéeyub sëriñ bi de ni mu woyefe ak ni mu barkeele ak mbégte mi ci boroom kër gi di am ngir booloo gi waaye yéen ci seen biir yërmande ji ak ndimbalante gi ak jàppandi gi ci biir day jàppandi lool ci biir kon loolu ngeen góorgóorlu ci ndax li leen may lii na jëm kanam ndax mbégum sëñ baara la fu mu génn la ko sabab waris na ko jëme kanam kon mi ngi sant tey sant démb tey sant tey tey rafet njot bu subaa cantug cantug bu subaa ndax kat mu ne su leen a ñàkk a jaboote bu ko yàlla dogalee nag ak jaboot loo ca fekk sa wërsëg la kilifa it loo ca fekk sa wërsëg la nee na moom li ko yàlla wërsëgale sant na ci yàlla bu baax ndax amul dara lu ci sikk te am na rafet njort ci ëllëg ndax seen jataay bi ak seeni jëf ak seen yéene ak seen pasteef yàlla na ko yàlla dëgëral barke sëñ Baara nee li mu bëgg a wax li ma daloon moo ko dal rek waaw nee li mu bëgg wax mu lépp munu koo li la ci xolam munu koo wax waaye tànk yii daal li ko sabab sant si kese ak jëwrin bu nekkee ci tool dara waru ko fa ump waaye yéen li ngeen nekke bu ñu doon nettali borom tool ba mbégte rek lay am kon yàlla jëm kanam yar bi teggin yi teey gi dafa doy sëkk bañ duggee ci kër gi ba léegi dégguñu atteel dégguñu jël lu yàq wax ji muy góor ñi muy jigéen ñi jigéen ñi itam sëñ bi daleen di beral cantuk boppam ñoom jigéen ñi ndax jigéen ñi waxtu wu ndigal jógee ñoo cay njëkk ñoo cay mujj te du yàq dara ci seenu njaboot du yàq dara ci seen liggéeyu kër itam seen ñaar dërëm yi seen ñetti dërëm yi liggéey bu mu duggut du àgg ñaar ndax seen Pastef kon loolu kon yàlla na leen yàlla dëgëral ndax itam mën nañoo nekk neneen te du tee ñu doon la ñu doon am li am waaye seenu njàmbaar seen pastéef seen bëgg sëriñ bi ndigal lu jóg rek mu feeñc kon jërë ngeen jëf nee na mi ngi leen di sant bu baax tey gërëm te ñu góor góorgóorlu ci ndigali sëriñ bi ndax koo xam lu la digal lu lay wàññi te lu mu la digal sa njariñ daal la lay yokk te moo la cay jiitu moo la cay man kooku lu mu la digal war nga caa góorgóorlu te takki tànk takki loxo teg ci buntu bàmmeel sëñ Touba rek moom lañ fa yaakaar kooka nag fii nu tol lan ko mën a njukkale am fayda am fulla ba la mu tere ñu moytu ko lu man <coughs> la mu digle ñu def ci suñ kem kàttan boo tëddee ña la tiim la nga daan jëf seen xel dana dal ci yow kon ñu góor góorgóor lu baax balaa bis boobaa ñëw rek nan am fulla am fayda góorgóorlu ci ndigal yi bi nu koy man te di ko tal ndax moo nu amal njariñ fii moo nu amal njariñ fa nu jëm ku ca tënkuwul yàlla na ci yàlla musal bàgg ca loola rëccu weesu na nu góor-góor lu baax yéeneen te jàmm lu waay yéene sa bopp mu yéene ko sa morom ndax Cheikh Sidi Mourtada daa da wax ne yéene daa mel ni na nga ko daa misaale boo xottee sa mbuumu rafet def ko ci sa gaal war a dem ca ndaje ma da ngay dem ubbi sa gaal sol sa mbubu mu rafet moome ni nee na bu jekkee ci yow boo koo ko solal noonu lay jekkee ci moom noonu la ko daan misaale kon yéenente jàmm rek suñ boroom bari na jàmm nañ ku bu ñu yéenentee jàmm ku ne dana am jàmm te jàmm du jeex yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla jàmmal yàlla na yàlla jàppale ci ndigalu sëriñ bi ba nu man koo jëfe te tere ya ñu bañ caa man dara barke sëriñ Touba yàlla na yàgg yàlla na saf xewal yi yokk ba ngeen man ndigal li barke sëriñ Touba ngi leen di sant di sant bokk yi mu muy doon sëriñam yi teew yii fi teew mi ngi leen di sant bu baax muy njabootu sëñ Baara gi nee na ak cantam tuut na ci seenu làmmiñ ndax xam nañ ni kër gi seen kër njaboot gi nja seenu njaboota bis bi bis seen bisa yitteem seen yittee sëñ Modou sëñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ak ak waxtaan wi ak kàddu yi ak lépp dafa mel ni moom nga doon waxal waaw loolu nag yàlla na ko yàlla dugal ci noppi ñu koy dégg ak te jëfe ko suñ borom may nu fan wu gudd fasu na akuk wér am tam yàgg Cheikh Baara it lañ ko denkoon ba tey yoon waa ngi noonu ñëw nañu gis nañu bëgg nañu ca kanam rek yàlla na ko yàlla jëme kanam ba déwénati ku ñu ku ñu ku ñu fay sa bor nga mer la nga leble woon daa baaxut te kum doon ci nun ñii eh, bakkan bu mus dund di nga mus dee li nga leen wax léegi kum doon ci nun war naa xalaat ñu wàqi ba mu xóot jal takk la teg ci bunt bàmmeel kum doon ci nun war na ko xalaat foofa sëñ li nga wax léegi sëñ tubaa rek la sa fa yaakaar ndax sëñ tubaa koo xam ne boo ko toppee mu yóbbu la fa mu jëm te fa mu jëm mooy fa gën waaw lu tox sa digganteeg topp ko koo xam ne boo ko toppee dana la yóbbu fa fa mu jëm te fa mu jëm mooy fi gën kooku mooy sëñ Tuubaa te seen jitaay bii wane na ko sëñ Fallou sëñ baa ngi lay sant sëñ Modou waxoon na ko daanaka jërutoon ma di ci ñëwaat waaw sëñ fallu sëñ bi nee na deesu la sant deesu la ñaanal li sëñ Modou waxoon ci yow li li sëñ Modou waxoon ci yow ci yar ci teggin ci orma ci nangu kilifteef ci gëm sëñ bi ci toogal ko fii loolu lépp li si sëñ Modou wax daanaka jërutoon ñu ñu ñu ñu ñu di ci jaaraat ci dara ndax ay waxam mooy waxu sëñ bi waaw waaye nag dafa tollook lu baax moom loo ko gën a yëkkati rek mu mu mu gën a jëm kanam ndax ñun dañu fi daan ñëw sëñ bi du yebal gisoo sëñ bi te la nga daan def ci noonu yokkoo ci dara tey jii wàññi ci dara am na noo doon doxee sëñ bi ñëw ñu gis nga yokk ñu xam ne kat ñun am na foo yemoon ak ñun waaye la nga daan séq ak ñun tey bii bi sëñ bi teewee jël jël yëfam nu topp ci gannaawam dara wàññiwoo ko ci loolu won na ne am na ku ma ko wax ci bëccëg neenaa naa ko bunti kër yi sëñ sëñ sax sëñ bi laa ko doon wax ni ko nga ñaanal ko ndax béréb bi mu nekk dafa euh, dafa day béréb bu naqaree ne ndax ku ne fii wàcc dafa sensible ku nekk fii wàcc waaye nag xàmmeewul ki nga xam ne ab seex laak ka sëñ Touba jur sa maama ka leeg moom ñëpp sëñ Touba la gis ci ñoom te ñi la fi doon teg itam ba tànn la li sëñ Moustapha waxoon léegi rek ñi fi doon teg ba tànn la ba teg la fi loolu daf leen leer moo tax ñu tànn la di la fi teg di la fi teg gis nga taalibe sëñ Touba kemb laa boo tànnee saw jiw ba jëm ca xam nga boo tànnee saw jiw da nga jëndi buuse génne xar génne lépp teg nee ba jëm ca tool ya est-ce que di nga jëlaat buuse bi di ko ci dugal kon sëñ Touba yàllaa ko tànn kon képp ku sukk jébbal ci moom yàllaa la tànn doo nekk buuse doo nekk ab xar jërë ngeen jëf